asalaamaaleykum waxtu wi nga xam ni moom laay bind li nga xam ne moom laay jàng sama doom Sidi Souleymane Seck mi ngi génnee ci kaso mbuur bi jëm ci suñu kër googu nekk ci Saly xale bu tool noonu nag nga xam ni fukki at ak juróom-ñeent la am mu génnee ci lu mel nii dafa laaj ma taxaw ko loolu moo tax ma jël dogal ci sama dund ni damay jóge ci li nga xam ni mooy bii public bu Sénégal maanaam damay noppee bokk ci ñuy wax walla ci ñuy wax ci biir Sénégal ngir mën a am jotu toppatoo sama doom jooju moo tax li dalee ci bis bii may wax ak yéen lépp lu jëm ci wàllu taskatu xibaar lépp juwam lu jëm ci wàllu jàngat ci politique lépp lu jëm ci feeñ ci télé wala ci rajo wala ci journal loolu moom sama ginnaaw la nekk ci bis yi di ñëw yeneen poste bi nga xam ni moom laa yoroon muy sama bloc dinañ ko dindi genn wàllu Dakaractu bi ma moomoon it jaay bi ma ko jaay dinaa ko yeggale ci fan yii su ko defee ma mën a am jot pour toppatoo samay doom toppatoo samay soxna toppatoo sama yaay ji nga xam ni macha allah mag la te yaram neexatul yaramam neexatul noonu li def ci sama temps nag dama fas yéene jox ko benn cabinet boo xam ne man maa ko taxawal. am na weer ci ginnaaw ma taxawal ko ubbi bureau yi fii nga xam ne mooy cité kër góor gi cabinet mi ngi tudd cabinet bi mi ngi tudd numéris canton dama fay def nag mooy sukkandiku ci ñi ma xam ci àdduna bi ci wàllu média ci wàllu politik ci wàllu koom-koom ngir mën a liggéey ak ay nit yi ko soxla ci lu jëm ci communication ci lu jëm ci lobbying lobbying Sénégal ak lobbying bitim réew ci lu jëm ci ay sondage ci lu jëm ci recherche ak enquête ci lu jëm ci ay gëstu yoo xam ne lañuy waaye étude de quantité et de qualité ci lu jëm ci aussi ku bëgg ñu bindal la livre wala document bu mu mënti doon boo ñëw ñu bindal la ko bu ma paree ci loolu nag daf may fàttali ko sama dund sama dund tey bu ma ko doon xayma dama naan dafa mel ni mythologie grecque ndax sama dund dama cee dund gudd yoo xam ne ay gudd yu yëkkatiku la ma dund ci aussi ay gudd yu méttee méttee méttee waaye nag comme ñëpp dama am droit dama am àq ci ñu fàtteel ma samay ayib xam naa ne nag boo ne Cheikh Yérim Seck wala nga ne jabaru Cheikh Yérim Seck wala doomu Cheikh Yérim Seck nga def ko ci article ñëpp dañuy wër dañuy dañuy saqatoo pour xool ko maanaam ñëpp boo ko defee daal maanaam da ngay da ngay am lan naan buzz waaye loolu teewul maa ngi ñaan di sàkku ñu jéem ñoo fàtte tuuti ngir yàlla wala bu ñu fàttewul ñu ñu may ñu nopplu tuuti am na solo maa ngi ñaan njéggal ci ñépp ñi nga xam ne nii ci ñaar fukki at yi weesu li ma wax walla li ma bind tooj naa leen ci wala ma yàqal leen ci maa ngi jéggalu ñépp ñi nga xam ni ni ma yàlla def xëy na neexu leen ba buñ mosaan a gis télé wala ñu gis mi seen dund mu am lu leen naqari seen biir xol ñooñu maa ngi leen di jéggalu maa ngi jéggalu ñi nga xam ne aussi ndeysaan dañ maa bëgg lool te lu ma dal wala mu dal sama njaboot ñoom sax ñoo ci gën a am naqar que man maa ngi sant yàlla bu baax nag nga xamee ni ñaar fukki at yi nga xam ni def naa ko ci mbalum tasxatu xibaar jéem naa sama kimtulaay kàttan ba nga xam ni lañ rek laa doon jéem a def mooy wax wala bind loo xam ne dafay jege dëgg maa ngi sant yàlla nag bi nga xamee ni ci ñaar fukki at yooyu aussi dugguma ci vie privée kenn defuma lu dul wax ci li nga xam ni moom la ñëpp bokk ci sama biir xol nag laa tibbee di ñaanal Sénégal yëpp képp kuy sénégalais yal na yàlla defal jàmm defal ko say jabar defal ko say doom di sàkku nag ci sénégalais bu nekk mu ñaanal ma jàmm ci man sama bopp ci samay jabar ak ci samay doom boo waxee dëgg nag dinaa wax ni texte yi ma mos a bind yépp bii ma tiim moo ci gën a metti waaw média international maanaam këru taskatu xibaar yi ci àdduna bi nga xam ne yépp dañ ma daan woo pour mën leen di jàngatal li xew ci Afrique loolu dina ma manqué magazine yi am Sénégal nga xam dañ ma fa daan invité lu bari muy jàkkaarloo muy l'invité de MNF muy la grand jury yooyu yëpp dina bàyyi vide ci sama dund li nga xam ne moom laa daan bind man muy édito yi ma daan bind ci sans langue de bois yëpp it xam naa ne dina dina xasan samay loxo waaye nag àdduna noonu la àdduna du loo xam ne dafay dem rek bis na muy neex ba pare nit ku ne aussi sa jaar-jaar ci àdduna lu ci ëpp du doon li nga bëgg mais day doon li nga xam ne moom la yàlla nangu ci yow waaye nag jafe-jafe bu ne aussi am na luñ ci mën a jàngat am na luñ ci mën a jëlee dafa am benn euh, théâtre kat bu mag bu tudd Coluche boo xam ni waa France la nee na àdduna bis bu ne mu tegal ay doj ci sa kanam doj yooyu nag yow yaay xool ba xam day doon mur bu lay baare wala mu doon pont boo xam ne da nga jaar pour jàll wax boobu wax wax bu am solo la te wax boo wax la boo xam dinaa ànd ak moom ci li des sama dund maa ngi gërëm ñëpp ci lépp di wax nag eh, à bientôt maanaam ñu gisewaat wala boog adieu maanaam ñu gisewaat ci kanam yàlla yooyu yëpp mi ngi dépendre ci li nga xam ni moom la ko borom bi bëggee salaamaaleykum